bismillahi mina seytaani rajim wa inni a'uuzu bika wa zurriyataha mina seytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillahi lazi la adra ma ismi sayru fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim bismillahi tawakkaltu ala llahi la qawla wala quwwata illa billahi aliyil azim barke seexuna seexul xadim cheikh ahmad bamba xaadimu rasul ñoo ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yow yéen mbokku jullit yi yéen mbokku taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di gën di kontaan ci yéen bu baax a baax ci seen taxawaay Euh, ci màggalu 2020 bi nga xam ne ñoo ngi nii ci kër Seex Mouhamadul Bachir doon def ak moom benn ziar booy doog a génn nii wax dëgg yàlla xam naa li nga xam ne wax nañ ko ak moom ak li mu wax ak ñun xam naa soobe yàlla di ngeen ko seetaan bu baax a baax ndax euh, sunu animateur bii nga xam ne moom la ñu àndal muy Ibrahima wax dëgg yàlla moom ñoo ngi koy njukkeel bu baax mënuñu koo fay fu ñu taxaw mu taxaw fa toujours wax dëgg yàlla ci lépp événement boo xam ne daayira nooru daare nii bu soppee Seex euh, Bass Abdou Khadir am na ko moom moo fay teew defa ko nu mu ko waree wala mu nu mu kawee sunu njort sax ñu ànd kook jawrin yi nag wax dëgg yàlla jawrin yu sunu jawrin yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla kenn amul seen pay ñoom itam muy Cheikh Saliou mi nga xam ne mooy jawrin général bi di Cheikh fay ak jawrin yi yëpp nga xam ne tam tàmm nañu di leen lim kon wax dëgg ñoo ngi santaat yàlla bu baax a baax a baax di ko di ko euh, am yëg-yëg bu baax nag saay suñu yeewoo rek sunu yëg-yëg di gën di kawe ci suñu jëwrin bii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Bachir wax dëgg yàlla comme ni ko Cheikh Faye di faral di waxee xamoon nan ñu bi ñu bi nga xam ne xamuñu ko ak léegi biñ ko xamee itam xamaat nan ñu kon ñun xam nan bu baax a baax li mu def ci ñun ñun ko waxee nag ñun moom suñu lépp moom la suñu xëyee ci la ñuy xëy suñu gontee ci la ñuy gont ba bëccëg moom rek mooy sunu lépp daal en tout cas kon nag ñoo ngi dolay sant ñëpp di gërëm ñëpp tàmbale ko ci caw ci kaw ba ci suuf ci soxna yi ak tout tànk yi ak njaboot gi daal wax dëgg yàlla kenn amul seen pay ni ngeen koy defee toujours rek noonu ngeen koy defee te saa su ngeen ñëwee mu gën a rafet gën baax kon yal na leen ko yàlla fulal comme ni ko sëñ ba waxee te sëñ Tuubaa nangoon suñu taalibe mu sax dak te mu yàgg lool te ñu ànd kook moom ñu fas yéene ñaan yàlla daal def ko ay safar yu bëree bëree bëri ay magal yu bëree bëree bëri te bu gën rek bu ñëw ba gën a kawe njort comme ni ni mu koy amee sax euh, wala magal bu ne kon xam naa ñoo ngi wàcce foofu kaddu yi ndax mbokku taalibe yi dañoo bëgg am ñoom tam lu nu jàllale sëñ Ibrahima noo ngi lay daloo sant di la daloo gërëm bu baax a baax sa taxawaay jërëjëf. waaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen waa fédération leen di nuyu nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe di sant yàlla bu baax di ko sant la Serigne Touba ci bésam bu màgg gi bi nga xam ne moom la woone muy màggal Touba. Mm. tey ñu nekk fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar mm. juróom benn fan ci weeru octobre atum 2020 mm. nekk fii ci kër Cheikh Mamadou Bachir Mbacke mu Cheikh Abdou Khadir euh, di ànd ak moom màggal gi ni ko jëwriñ Mbacke waxee léegi mooy sunu jëwriñ ci yoonu Serigne Touba. di jëmm joo xam ne ku neex a àndal la na ko wax ji sax jarta yaatal jëwriñ yi wax nañ ci li ci mat a wax di nuyu bu baax jëwriñ sëñ Saliou Faye ak Serigne Cheikh Faye ak euh, sëñ Mbacke sëñ Malick sëñ Aliou Dieng Baye Serigne Serigne Faye sëñ Abdoulaye Dione ak jëwriñ ñëpp daal ñu ngi ziar ñëpp ak jëwriñ ñu ànd ak Makhtar Ndiaye ak ñëpp rek di sant bu baax nag ziar bi moom euh, tawféex la ñëpp a ci kontaan ndax Serigne bi moom li may wax rek mooy képp koo gisee gis ko boo gisee sam bu fekkee kontaanam nga si moom dana yokk bu fekkee am na leneen loo doon xalaat dana doy ndax sëñ moom mooy mbëgum yoon wi da koy ñaanal yàlla yàggal ko fi may ko wér di sant baax sëñ Alaaji mi nga xam ne moom mooy sunu jëwriñ si moom di ko ñaanal moom tamit ndax uh, moom sëñ Alaaji daanaka lu ñu am si kër sëñ bi gannaaw yàlla ak yonent bi moom la da koy ñaanal bu baax di siyaani bokki taal bi yëpp di rafetlu màggal gi di ci kontaan lépp lu ci waaye jëf daal bu ël bu déwénee na yàlla na nga mën lu ko raw ci barke Sëriñ Tuubaa